ñu waxee ci wàllu norme yi norme yi mosu fi jógee te lu ñuy gën a dem si kanam norme yi day gën a amélioré wu donc foofu du problème bi euh, dañu am problème mu lu ma ko mën a wax ci gàttal indiscipline. problème d'indiscipline voilà c'est-à-dire ne pas respecter la réglementation ne pas respecter les lois loolu foo wëlbatiku ci Sénégal rek di nga ko gis loolu nag moo law ba ci mbiri construction tabax ak ñàkk topp réglement bi parce que règlement bi moom mu ngi fi boo ko toppee eh, di nga am construction bu mucc ayib mais boo ko toppul lépp ci xaj dégâts matériels dégâts en vie humaine euh, ak autres dégâts. Mm-hmm. waaw nga ak des dégâts collatéraux cest dire nga yàqu ba pare yàqal sa bopp yàqal keneen ku ci bokkul. Mm. waaw. Euh, si damay def enchaînement question ay Aïcha wax nga ne euh, norme de construction yi mosu fi jóge mais aussi ni doon peut-être constitution bi changé na ci dëkkuwaay bi. parce que aujourd'hui espace yi dafa réduire de plus avant dañu doon construire peut-être large mais aujourd'hui tu es obligé de construire restreint mm est-ce que loolu du impacter un peu sur la solidité euh, de la construction non non c'est-à-dire situation bu mu mën a doon rek les spécialistes les techniciens xalaat nañu xalaat nañ ko xalaat nañu construire ci biir ndox mi xalaat nañu construire ci montagne yi. Mhm. xalaat nañu construire ci marécage lépp mais selon les normes euh, espace bi tuuti euh, dafay am nu mu war a tëdde bu dee espace bu yaatu tamit dafa am nu mu war a tëdde li am importance daal mooy règlement bi ñu topp ko topp ko mais loolu aussi li koy yombalal mooy. professionnels yi ñu impliqué leen waaw mais bu leen deente ni yow da jóg rek ne ah man kat nangam nangam jën sa saako ciment jën suuf si waaw oui ñu ngi ñuy mais aussi euh, boo jëloon tey pourcentage ñi nga xamante ni ñoo ñëw ci professionnels yi. Mhm. Euh, barewuñu mais mais mais boo xoolee aussi avec les professionnels c'est trop trop cher déjà tabax kër rek dafa metti mais boo demee tey gis benn benn architecte professionnel euh, lam lay taxé aussi dina tax nit ñi dañuy préférer bàyyi leen foofu dem ut leneen. c'est c'est euh, appréciation bu am euh, relativité parce que ñun architecte. am na du ñuy wax assistance architecturale mhm. c'est-à-dire bunt la bu ñu ubbi boo xamante ni mën nañ ci taxawu ñoo xamante ni xëj na seen moyen demewul noonu waaw donc loolu tamit parce que l'architecture est d'utilité publique waaw donc am nañu bunt bu ñu ubbi boo xamante ni mën nañ ci assister ñi nga xamante ni seen moyen demewul noonu mais aussi li nga xamante ne daal mooy <laughs> mooy jaadu mooy euh, architecte bi nga soxla ko dem ci moom mu defaral la li mu war a liggéey. Mhm. Euh, après keneen intervenir keneen intervenir parce que c'est une euh, discipline pluridisciplinaire la construction. Okay. est bi am na ci wàcc ingénieur bi am na ci wàcc. Euh, ingénieur génie civil maanaam ingénieur géotechnique am na ci wàll ingénieur électromécanique am na ci wàll ainsi de suite ainsi de suite